alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiallahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf faxri diini walwatan mawlana al abd al xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah bokk jullit yi bokki taalib yi bokki réew mi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 bakkan yu bokk na ci nattu yi nga xam suñu borom waxoon na ne danaa leen ko teg wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarati wa basiri sabirin wa naqsin min al amwali kon xam ngeen ne bakkan yu rot na ci nattu yi suñu borom di wàcce ci mu nekk balaa ci biir loolu nag ñu xam ne bakkan doomu aadama dafa diis ndax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 ni ko borom xam-xam yi firee mooy ku mu wóor ne boo rayee ñu ray la doo rey kon yow mi yow mi rayee da nga mucc ki ñu dana mucc ba ci mooy diineem eh, boo xoolee diine jihaat li tax fi ko lislaam di santaane mooy ngir nga défendre sa bopp wala ñu attaque sa diine kon loolu boo ko see seetee atte boobu itam kon da ngay gisaat diis diisaay bi ba ca tool tool dollikuwaat mooy alalam alalam boo gisee lislaam santaane wasaarixu wasaarixatu faqtahu aydiyahuma aydiyahuma jasa bima kasabana kaala moo tax mu santaane ku sàcc ñu dagg sa sa loxo ngir loolu itam bëgg ko aara tax mooy askanam boo gisee mu mu tere njaaloo ngir bëgg ñoo sàmmante askan yi loolu bokk ci li nga xam ne euh, lislaam euh, da ko da ko da ko diisal kon loolu nañ xam ne euh, lislaam lu diis la ci moom bakkanu doomu aadama moo tax sëriñ bi nee ne mi ngi fàttali loolu jullit yi di ko fàttali taalibe yi na ci ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ne mën naa indi bakkan bu faatu wala mu indi fitna rek nit ñi nañ koy wattandiku bu baax a baax te xam ne ku ko def ku ne sa bopp nga koy defal képp koo xam ne sàmmantu loola itam bàkkaar ba suñ borom lam diggee woon euh, dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee mu ngi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag ñëpp gën a bàyyi xel ci loolu lépp lu mën a indi fitna rek ñu wattandikoo te xam bakkaru doomu aadama diisaay bi ak li ci nekk nee na kon loolu mi ngi wax ñëpp lu waaye man ci dellu sa borom jéggulu ngir bàkkaar yi mën a wàññiku dellu sa borom ngir yërmande yàlla mën a wàcce waaye itam lépp lu waaye mën a génne ci sarax ndax saraxkat balaa sarax bokk na ci di koy teggi kon li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu falyunfiq mimma aataahu llah kon loolu sëriñ bi neen loolu lay fàttali ñëpp ñu bàyyi ko xel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 moom ci bopp mi tam ngir xam ne eh, lépp loo xam ne taalibe yi am nañ ci doog rek Sëriñ Tuubaa da leen ci fekk si sombu rëy muy université bi yëg na ne nag ba mu ko tàmbalee ba nëgë nit ñi ñu ngi ci def luñ mën ak luñ ci mënut ba weesu na sax fa ko séntu woon kon la euh, kilifaam gu tëdd ga Cheikh Saliou Mbacké daa wax rek ne joxe bi dafa jiitu laaj bi mi ngi sant mm, ñi xam ne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 te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit war na am feneen fi ñu ko mën a jëme wala feneen fi ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara du may jéem a yàq positif nit wala ngay saboté ay nit loolu euh, ko dëkkal te respecté ko sax te gëmoo ko ndax sëñ Abdou Lahad daa wax ne ku la yaakaar ku ne sam nawle waaye nag xuriyatu taabir li ngeen tuddee liberté euh, mooy wax sa xalaat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 waaye nag bu fekkente ne da ngaa war maa sabab nungoo ko la tudd ba noppi wëlbatiku ña nga xam ne wóoral duñ say nawale duñ say morom lu la neex xëpp leen loolu bu yàggee bu fa jàmm jëkkee du fa mujj. kon loolu itam ñu ngi ci bàyyi loo xel ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne loolu ci seen loxo lay jaar yéen itam ngeen ci bàyyi xel ndax am na ci loo xam ne bu ko nit indee jëmee ko ci yow mu wóor leen di ak yàqare te amul njariñ loolu. boo ko jàllalee itam yéen yaar yéen yow atte te in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu alxuraan dafa wax ne buñ la joxe benn information na nga ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg la am déet ndax euh, lam cee bañ euh, fatabayyanu an tusiibu qawman bi jahaala fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin mooy bañ nga joxe benn information boo dee ba ci mujjee nga xam lañ la waxoon wér loolu doomu aadama war na koy sàmmonte ci diggam ak boromam waaye war na koy sàmmante diggam ak ay nawleem doomu aadama hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant asalaamaaleykum wa ta taala wa barakaatu